état d'urgence bi nga xamante ni nag jeex na niki keroog président Macky Sall daal di lancé waat beneen nag état de catastrophe naturelle loolee nag di wane nii rek fu mu toll nii mbir yi ci boppam moo tagatéel li loolee nag tax sax ñu daal di amal li nga xamante ni mooy couvre-feu gi war a daal di continuer ba le 20 février atum 2021 bi nga xamante ni moom nañu daal di nekk mu war cee jeex ñuy xool ba xam dana daal di am déet waaye nag couvre-feu bi ci boppam jamono ji am nañu ci commencé mere président bu baax a baax a baax ah, bu nu waxee loolu nag dañuy wax ci scandale bi nga xamante ni moom Aminata Lo Dieng daal na koy def nit ki keroog ca commissariat bu Ouakam ginnaaw bi nga xamee ne nag heure couvre-feu bi jot na ba noppi ñëpp fatu moom ca la toog këram xam le ni rek ni dafa daal di toog fàttali ko ne doomam dafa waroon xëy dem école te amul goûter ca la génn dem ci biti ngir ut bu mu ko jëndal mu lekk ca boutique ya ah, fa la ko police ni ñipp daal di koy dugal ci seen oto ba mu daal moom Aminata Lô Dieng lu mu yàqul Macky Sall ak régime bi rawatina takk der yi ah, daf ko daal di fàtte dem sax ba koy ah, daal manqué de respect di ko ah, saaga moom mi nga xamante ni mooy président Macky Sall mu jàpp ne nag lii lépp ay manigance am la moom Aminata Lô Dieng ñi nga xamante ni sax ñoo fexe woon ca commissariat ba ku ci mel ni commandant ba nag ñëpp ñu ngi ko doon sax jéem a dalal ak di ko jéem a nag daal di wax ngir bu daal di dal wala boobu mu ñibbi ndax yuuxu saaga ak wax yu ñaaw yi nga xamante ni doon na ko génnee si gémminam moo tax jamono ji moom mi nag foofee sax la ab frère am itam ñëw ba mu ñëwee moom Aminata Lô Dieng jàpp nañ ko sax ndax la mu saaga ñu jàpp ne institution la saaga mi président Macky Sall mi nga xamante ni daf ko doon traité de tous les noms ñu yóbbu ko ci commissariat daal di koy amal li nga xamante ni mooy ab garde à moom mi sax ci ay quatre heures du matin lañ koy door a bàyyi mu daal di ñibbi këram ginnaaw ba kenn ki yor communication mu ñëwee nag daal di joxe ab caution boo xam ne daf ko daal di fay frère am moom itam ñëw créé fa boucan xeex benn agent boo xamante dafa daal saagan saaganteeg moom loolee naka ñu daal di koy duppee outrage agent moo taxoon nag ñu daal di koy teg loxo moom Aminata Lô Dieng la mu yàq nag président Macky Sall ak ki nga xamante ni moom mooy commissaire ya commandant yi nga xam ne ñoo ko tegoon loxo lépp nag ñu ko dëxañ ci ab nag audio boo xam ne dañ ko enregistré moom Aminata Lô Dieng déglu leen ko. on de maladie pour voler des milliards. fan la fay caution bi 3000 francs fan la ko fay. y' a pas de caution payée bonheur là. 3000 francs la. non y' a pas de caution. caution bi 3000 francs man je l' ai payé. on m' a pris. je je ne reculerai pas. d'accord un grand mot tax. ba suba. demain tu me convoques. dama ubbi ñu dem. saa yu dem boo ma fay ma fay léegi 3000 francs. ça c'est quoi. la caution c'est combien. toogal daal xaar yi yéen man maa leen di xaar yéen. non ki ko yónni. kenn yónni wu ko. dañ koy yónni. waaw kon faale wu ma Macky Sall. Macky kii kii maanaam dugal. waaye bàyyi ma waay. dugal fay caution trois mille trois mille francs. le jure billahi wal kitaabi demain vous me verrez ici. ma ragaluma dara. waaw ce Macky se ce voleur de merde. maa ko wax man. jëloon micro bi enregistré nga wan nga mu dégg ma. c'est un dans la boue tëdd nelaw vingt yeewu leen 6 heures du matin. pourquoi. sàcc 500 milliards la bëgg a. sàcc suñuy milliards il a il les 1 milliard les 1 million de milliards léegi 500 milliards. sa morom. vous nous vilipendez. vous nous traînez dans la boue. Aminta. je m'en fous. vous êtes ancien ministre. billahi wal kitaab tey ngeen may rey ci kat. non je dis vous êtes ancien ministre. taalal oto bi. cinq fois. dinaa brisé gris bi. di ngeen ma rey. taalal oto bi. loolu effectivement bien effectivement bien. je me laisserai pas faire. kaay bëgg da bëgg scandale di ngeen ko mu waaw. y' a pas à négocier. ko ma yóbbu prison. wala ma génn prise de part y' a pas à négocier. aussi waaw waaw. waaw. police au Sénégal, c'est vous, vous, êtes de la merde. Vous ne nous respectez pas. Vous ne nous respectez pas. Moi, je paye 3 000 francs. Nous, nous, jeunes Macky Sall, nous, nous, ñun li ñu def ci réew mi Macky Sall def ko. moi je paye 3000 francs. waaw eh mais c'est pas gentil. président nag daa allé se foutre. j'en ai rien à foutre de Macky Sall. Macky Sall faire foutre.